ay kaas dégg nga ñu ne si si léegi ku doon ma defar barrière bi barrière bi laay def. dem leen bu baax dem leen bu baax replay replay replay replay arrière leen bu baax. non non loolu du problème. wet wet wet wet leen demee arrière leen bu baax bu baax. may leen ko ngeen def. replay replay. nag nag nag nag arrêté leen tuuti allez la tuuti ñoom Ismaïla Baye ajal bu manqué tey saa yi mu doon ak kàttan waaye jëlal nañ ko borom barab bi dugg dugg dugg si am na doon allo. waaw Aliou ay papa ay dada daal Aliou. lu yàgg dëgg la. loo ma tax ñu naan tey. <laughs> ay ay sabar gi. sama maam daan wax mbaam gàtt nga waay ci jur gi la. day dem rek day dem rek man si laa da ngay dem rek day dem rek. allo. waaye nag Aziz. nii rek la dafa am. sama jigéen ma bëgg na xale yi yëngu ñu ambiance tuuti. yow da ngaa baax. door a tàmbali ko yaram bi. ba pare am jom. yow moom bu ñu àndee tournée mm. sama néeg lay wax su may suy jëndi puus man lay woo ndax xam lu war a laaj nee nañ na mu jaay Salvador daa dugg si te dañoo bëgg faama ku ne xam nga ne yëf yi yaa koy seer am yoon ñu am rek lañu sant léegi comme que Nabou Ndiaye sa botoon yegg si na ah ànd ak forte délégation. avec une forte délégation. ànd ak Mbaye Karim ak ay nit yu fa nekk. chéri monsieur Sylla fan yii dégg naa ngay daas ngeen daas ci monsieur Sylla loolu la xam nga madame Sylla ma nga monsieur Sylla bëgg. te néegi yi ko fonk loolu madame Sylla loo wax ci moom tamit. dëgg la mu ànd ak forte délégation. bis gi nag mooy marraine bi moom la ñu marraine bis bi. ma nga salon ba ma nga Nabou Ndiaye mais pare na de moom Ndeye Ndiaye bànn yaa ñu ngi toog sama séeréer fii te ginnaaw salaamaaleykum kii moo ma jox lii waaw kooku sama bañ la kontaan naa la ñu wax loolu dañ ne doomi Tiwaawan dogo waaw ak yow da ngay dem ci ginnaaw ngeen baal ma parce que tenue traditionnelle lañu woon xam ngeen samay xarit ngeen. léegi nag sama mag ñëw na muy xaale mbay. xam nga lu ma koy ñamale. waaw ku ne ko ne yàlla dogal. ku bëgg waali sa ñaari loxo. wal bi wal bi doxum daal. kàkkatar daram nga ko daa di buy dur ba nooy. xaali booy. xam nga lu ma ko waali seen. maa ne ko waali seen. ku feebar ba faj. ku jooy mu nax ku jënd appartement mu jëndal la kër. ci nga xam.